sayin kacaɓetirnin damintota wolmo sayin a nomination o kela womo ka tommodiro ke pour min ñanta lola keeda ɗum bere fawoñin kono tommodiroñin keda tili sababu cola kono karo tili sayi karo tili kononto anin karo tili tan tumo min de banta karo tili tan kono naata ko patio me ɓa ko aprc député banku tan nani anin sayi itele mo londi a beetole amulda ko tele candidate men soro tannani nen saybe so ngalon ko banko be kan député banko tannani nen sayla bije so tele natana candidat lo min tannani nen sawo nin betora pati o melon ko ba fulay ko NRP wol fana natana candidat lo député banko sayla to mana tele mo sayla to mo ye men londi pour bere fawo ke mol men yalon ko ba fulay ko fanye londi mole comme independent candidate woni mo mo wonnati men lota pour fana men yindiro ke kan pour fo si keno député ote so mi temmo men do sañ den a juube banko be kam komi banko ñin talata fanna worowlalati administrative areas so banjunna fanna la banjunna administrative area député banko fula carte fawo be kala wala to ok kanifin municipality député banko saba carte fawo be kala wala to ok brikama wala mo west coast region ti député banko saba carte fawo be kala wala to nirara kerawan kan wala nbrt north bank region mm -hmm. député uh, eh, bere fawɓe kala député banku nanele to mm -hmm. nirara man sa konko même mo lrrt lowa river region mm -hmm. député bere fawɓe kala député banku sabale kan mm-hmm. ni tara janjambure administrative area mm-hmm. même mo um, ka foɗami to makate banko kan siyara central river region uh, eh, bere fawɓe kala député banku saye aɓe kala wolto ni tata laban kan wala base banko ti memu urr opariva region dibide bere fawo be kala dibide banko kelen na kanje wala mo base sato nyande so ni tata ya jube um, returning officer worwulol mm. men be be tundol ka e be kabiri nyin candidat nata yela kaytol dila ani satol men be e nata yela kaytol jube nata tare ko nyin be satol timmandele so e na song ela candidat yala ka fsa candidat la modi mm -hmm. fana sinini kenole mm. dibite yala mm -hmm. sosa ha min ɓe loori faye ah, indépendant o mo saylete mm-hmm. aprc la mooli aprc min londi mo tannan nen sayi mm-hmm. nrp min londi mo sayi mm-hmm. bari sognata kele ka fañini be sarto timmandile ka fo sa isolonole ne a juuɓe kunu Eh, eh, dimanche ɗum wala kata ɗum fankode scrutini fankoñentitan hmm. pour que kayitol ñili lande hmm. ka juuɓe nin me kuma ku sotonoje ka ye sotaro soto je hmm. e sinana ya kalame ka fo sotaro sotonoje law kake kabo talansa e somonda kata fo talantannen fula flaka midi tribulo bari kibari manna sotono ko mo sotota ne wulta ka candidat dola kayido ka sotaro soto je ka fo kata man son ka fo ñin candidat la candidat alkayitol man timma o manna soto mm. so a yitandi ko min be nominata banko kan e bela sono ñen a sabatitale sayin tuman do inchallah ka camina fota jabari wato ñin na deto kamma mm -hmm. ba sayin den campagne o commencé la karotiri tanni naani fo kata karotiri ne worow la bari janno si han binna diyamo bammanne damin to ka wala mi ko mo lete men yalon ko sayinde yo sartol timmande pour que lo so lo loola carte o fayle bari mbiye yamar ko mi kayro ni tenkun min banko banque ka kan isa kada mbiyewo kanta o sabatende mais mo fana yamar la bere be banqueol men ka ila le se finti baake yetaytakarte o fayi mhm. banque ɗol bi je mhm. wol taral on oppose mhm. bere fayde kelo blato yol kaye sidron bara bere fewɓe damel to kan ye finti fintiña kendola yetayta carte o fayi candidat a ga ñim foyle ka fo ko ye campagne itinéraire men ndi mulla yo campagne itinéraire nta ya buña ya horma nde koye bitañin dula kara ñum waate karale mm. taje waate watola ila watoñum banda fana boƴe ila mula ila soppodal fana ye a kaje koye doye dol buña e dol a yaje ko dal itel dammonde wuluta eɓe ñoo saba kan fende la a kadi ñawñande mo kelinde batala bara ni men basotala ay ke hormo kono ni a fanan fotala a fo a hormo kono a kanake hormantaya kan yayimɓe a mo danla a babake komi wato tije bake annon ndiyamla fana mbe mm-hmm. sarina fulakan fola yimɓe yamima amadou talde mm-hmm. annofamuɗum adare koɗo mhm. praye mhm. souvent kam fof mhm. katatele yafa baɗi teɓe muɗuna lele kanne parce que ko dolɓe je fo ga sene yande jannin ka kacaɗa tala euh, ok euh, mboke ñu setan comme euh, nima ko waxe rek si kala may angale ak soose fi mu nekk ni ci mbërum élection lañ nekk ni maanaam élection yi député wote député lañ nekk ni te fi mu nekk ni nomination yi jeex nañ ñu ñëw nag si ki nga xam ne mooy Sambou Janjaye mi nga xam ne mooy waxtaan ak suñ olof fii mu wax ñu euh, outcome yi nomination bi ak euh, lan yan candidates euh, ñoom ñooy yan parti ak candidates ñoom ñooy taxaw pour élection bii ni nga xam ne moom la ñoo dikmal si ok jërëjëf mama hmm. maa ngi si suñu seetaankat ak ñu ñoo déglu nekk si réew mi ak si bitim réew di leen dikkee tey naka nomination si mooy bis bu bis yi nit ñi ñëwoon si suñu office yi di taxawal seen bopp wala di taxawal seen candidature ñu mm-hmm. ko ooyee si anglais nomination mm-hmm. nomination si defoon nañ ko si fukki fan si juróom-ñetti fan ba fukki fan si weer bu weer bu ñu nii mm-hmm. bu nomination si joxee keroog samedi si fukki fan ah, nii la naka mbir yu tëddee APRC parti ñoo am nañ ñeneen fukki nit ak ñett juróom-ñett. ñi nga xam ne taxaw nañ si bérébu sànnikaay carte yëpp mooy goxi sànnikaay carte yëpp. Mm. ñoom place yi lañ taxaw. Mm. Euh, NRP ñoom taxawal nañ juróom-ñetti candidate ñoom si juróom-ñetti place rek lañ taxawal. Mm. ñi ñoo ooyee independent candidate mooy ñi nga xam ne bokkuñ ñu taxawal seen boppa ñooñu dañ taxawal seen bopp bokkuñ si benn parti jox nañ ne AIC jox nañ seen couleur jox nañ leen seen mandarga bu ñoo defee seen campagne. Mm. ba looloo tax independent candidate bu nekk. kolo buñ kolo buñ ko jox wala kolo buñ ko jox ak mandarga buñ ko jox. Mm. utee na ak mandarga ak. chlorine hmm. parti hmm. hmm. ah, bu register with IEC and the secret with fii bu doomi dem si suñ jeexee bérébi dem sànni carte mi la tëddee si goxi suñ demee si goxi Banjul ñaari bérébi sànni kaay carte mooy dox foofu mooy nga goxi député ñaar ñoo am sànni carte suñ ñëwee si suufi Kanifing ah, goxi député yi ñetta ñoo fa ñooy sànni carte suñ ñëwee si goxi Brikama moom tamit ñetti bérébi gox bi député ñooy sànni karta mm. su ñëwee si suufi ah, Kerewan ñu ko ooyee euh, North Bank Region mm-hmm. foofu ñeneenti bérébi ñeneenti goxi sànni karta ñooy am sànni karta mm-hmm. su ñëwee si goxi Mansa Konko mm-hmm. euh, ñu ko ñu xamee ko si Lower River Region foofu tamit ñetti goxi député sànni karta ñooy am sànni karta su ñëwee si goxi Makati ñu ko ooyee euh, Janjanbureh Central River Region juróom-ñetti béréb yi sànnikaay carte goxi yi sànnikaay carte yu député ñooy dem élection mm. su ñëwee si goxi yi base nag ñu woowee ko si ñu ko gën a ko amee si Upper River mm-hmm. benn gox sànnikaay carte mu am carte mm-hmm. so mu ngi mel ni ñaar fukki béréb ak mm-hmm. ñeneenti si réew mi ñooy sànni carte te si luñ am yëpp si goxi yi sànnikaay carte ñeneen fukki ñeneenti fukka la ak juróom-ñetta mu ngi mel ni ñaar fukkaa ñeneen ñooy dem élection ñaar fukkaa ñeneen ñoo demut élection bi looloo tax ñu wax ne euh, ah, independent candidate si seen boppa ñu ngi ñu ngi ñoo fàttali ne kenn ku nekk dañ ko jox couleuram mm. ak mandargaam mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawal seen bopp waaw ñu taxawal seen bopp ñoo xam ne taxawaluñ benn parti mm-hmm. seen bopp lañ taxawal mm-hmm. bokkuñ suñu benn parti mm-hmm. seen bopp lañ taxawal suñoo campagne seen bopp lañ ñoo campagne campagne luñ benn parti noonu la mbiri tëddee ok euh, dinañ dellu si waat euh, ñu ñu si suñu euh, ka e o panel o ko wote député aji ko ɗum min haalata ɗo e bandirawo amen oɗo wonni amadou tall ko kanko woni regional electoral officer mo um, kanifi municipality mi acca mo yewta yimɓe ɓe uh, mr tall you welcome ah, a jarama no feewi mama dieye <laughs> assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe mm. daroɓe télévision gambia e watta e hettotoɓe radio o mm. ko minen aic e ha joni arti ɗo yewtude e moɗon affaire élection o min calmini on on juurama e o programme e inde ceaman amen o alhaji moustapha kréol mhm. e son ƴeewino e, ko yawti ɗeya balɗe ko yawti ko nomin kaliranno on ni mhm. balɗe tati lelnano pour affaire nomination pour subde candidat ji mhm. ɗum wonno ñande jeetati ñande jeenayyi e ñande sappo so nomination o timmi ñande sappo e caggal nomination o kadi min keɓno ko wiyete public scrutine ñande dimanche ɗum woni ittiguila wattuji jeetati ha wattuji sappo e ɗiɗi pour yimɓeɓe gara tesko candidat ji mbaɗaɗi nominé ɗi kono noon ɗum ɗon nde waɗi min jooɗima to office aji amen ha dimanche o ha wattuji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi yawti hay goto arani wiya e candidate kaari fotani walla timminani sarɗiyeji ɗi mm. so no wayini ɓen ɗon fof joni no wayini e, ɓe mbaɗama endos ɓe foti e darade pour affaire député yagal so no lelori ni noon e nder leydi ndi foof aprc ɗum woni pati lamɗo kanko ko député ɓe capanɗe nayyi e jeetati o darni e leydi ndi foof itti gila banjul ha basse so ari nrp ɗum woni pati amad ba o kanko ko député ɓe jeetati ko ɗum woni o darni e leydi ndi hmm. ah, ko wiyete independent ko ɗon neɗɗo daraniɗo hoore makko kanko o hmm. o tugaki e les pati o hmm. wonanani pati kanko ko hoore makko tan o wonani ɓen ɗon yeehi ha yimɓe nogas ko ɓen ɗon dari pour wonde independent so wiyama independent noon soɓe gari to